waaw salaamaaleykum salaamaaleykum mbokku Joal Fadiouth Ngazo Biir salaamaaleykum waa àdduna ñu ngi nuyu ñëpp euh, bon damay présenté wu d' abord Mouhamed Daffé euh, coordonnateur du mouvement Joal Fadiouth Ngazo Biir renouveau avant ñuy commencé dañuy nuyu kilifa diine kilifa aada rawatina ñi nga xam te ne ñooy kilifa yi nekk au niveau de Joal Fadiouth bon tey nag suñu ñëw fii au niveau de quai de pêche bi dafa nekk euh, ñëw boo xamante ni. dañ koy saluer bu baax a baax ànd si ak le mouvement Joal Fadiouth Ngazobil renouveau si journée mondiale de l' environnement loolu nag euh, am na ñu ñu ci àndal ñu ci àndal muy instance yi nga xam te ni ñoo sekk port bi ñu siy jiital le président William Lalur, nekk président ki nga xam ne ni moom mooy de bi ak le président Thione Ndiaye nekk président mareyeurs yi ànd si aussi ak ki di Pape Gana bu CLPA coordinateur CLPA ana nañ si aussi ak di euh, monsieur abib ndjay nek président des pêcheurs en activité ànd ñom lañ andal ci journée bi tay li tax nak ñu and ak ñom ci lolu parce que ñooñ ñoon nga xam ñoo ngank tefes gi té ku wax tefes wax li nga xam tane moy mooy GIE interprofessionnel té vraiment euh, biñ leen solliciter ci yëf yi dañ ko dañ ko saluer rafetlu ko am ci contentement parce que journée tay bi ni nek na journée bo xam tane journée bu symbolique la parce que li tax loolu mu symbolique mooy environnement environnement ku ko wax mooy li nga xamante ni moom mooy gàncax gi ak li nga xamante ni moom mooy fi nga espace de vie bi nga xamante ni doomu aadama mu nekk et je que ni euh, jot na tey doomu aadama yi xam ne tey set dafa nekk ci loo xamante ni dafa primordial parce que set bu amul rek lu ne mun na ci am doomu aadama bi fi nga xamante ni yaa ngi fi nekk di fa liggéeyee war na mën a set. war na mën a ucc mucc te ayib te loolu moo waral tey ñu ñëw fii au niveau de quai de pêche pour def benn ju pour pour pour solliciter kii journée bi quoi pour renforcer journée bi aussi pour jox ko importance sam si kaw loolu gis ngeen tey bi ñu ñëwee fii tey à huit heures matin gars yi nekk nañ sir place gis nañ aussi que ne gars yi affaire bi soxal na leen parce que set dafa nekk loo xamante ni tey àdduna bi yëpp. loolu la ñi raw ci àdduna bi yëpp loolu la bokk na li gën a tax ñu raw raw fi loolu bokk na si muy lan wàllum set set dafa nekk loo xam ne lu am importance la kon ñu ngi ciy woo àdduna bi yëpp rawatina Joal Fadiouth bi nga xam te ni Ngazobil fi ñuy fi ñuy yeewoo nañu xam ne set dafa baax doomu aadama bi set dafa nekk loo xamante ni dafa primordial moo jiitu ci lépp rawatina kee bi ñuy liggéeyee xam naa ci kanam dinañ gën a yaatal par rapport ak li nga xam te ni moom moom moo ñu fi andi tey aussi may saluer li nga xam ni moom mooy Ziva TV voilà maa ngi jégalu euh, ñuy rafetlu seen teewaay ci bés bi gis nañ aussi tamit niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko taxawalee quoi macha allah ci kanam dinañ gën a yaatal ci ci principe yi ak li nga xam ni moom moo ñu ñu fi andi tey. nuñ ko waxee ah comme nuñ ko waxee sànq rek dañuy jaajëfalaat képp koo xam ne ni teew nga ci journée bi tey parce que journée bi nekk na journée boo xam ne ni c'est important dañuy jéem a xool naka la ñuy def ba nga xam te ni quai de Joal quai de pêche Joal Fadiouth Gazobil war mu war a mun a nekk bërëb bu mucc ayib bërëb boo xamante ni jafe-jafe du fi am sur le plan sanitaire parce que bu ñu seetloo affaire yi gis nga tey li ñu fi ramassé si ordure nekk na loo xam te ni bëri na te kenn mënu ci wax léegi dañuy dox ñu ànd ñu xool ñax la ñuy coordonné ak gars yi laa gis nañ Doudou Faye Doudou nekk un membre nekk membre ci biir Joal Fadiouth Gazo bi renouveau ñu kii ko quelques questions rek mu mun a wax wàllam ci nga xam ne ni mooy bés bi Doudou ñu ngi lay nuyu. waaw ah, ñu ngi leen di fay coordonnateur di rafetlu initiative bu baax a baax. am na tey jii c'est une journée boo xamante ne elle est symbolique dans la mesure où adduna bi yëpp ñun ñoo koy célébrer muy journée mondiale de l'environnement ñu gisee ngeen taxaw ci nag duñ def lu rafetlu ko bu baax a baax a baax ànd seeg yéen ci liggéey bi voilà jëm ci satisfaction daal. macha allah du euh, euh, lan moo nekkoon li nga xam ni mooy sabab bi ba mouvement Joal Fadiouth nga Jobil am yéen ñëw tey jii ci quai de pêche bi pour journée mondiale de l'environnement bi. waaw mouvement Joal Fadiouth nga Jobil renouveau nekk na mouvement boo xamante ne ba mu juddoo yàggul mais li mu taxaw ci Joal Fadiouth ñëpp gis na teg nañ ci seen bët parce que sur le plan social mu ngi ciy taxaw sur le plan sanitaire aussi mu ngi ciy taxaw tey mu ñëw taxaw sur le plan environnemental euh, muy journée mondiale de l'environnement bi euh, nekk na mouvement boo xamante ne vraiment duñ def lu dul rafet lu liggéeyam parce que ñun yàgg nañ nekk ci commune bi di taxaw pour lu jëm ci euh, avancement dëkk bi te bu ñu gisee mouvement bu mel nii taxaw yéen ngeen nekk coordonnate yow nga koy coordonné voilà ñu xam ne ay personne ressources ngeen yàgg ngeen naa bëgg dëkk bi yàgg ngeen naa xeexal dëkk bi duñ ñëw lu dul rek ànd ak yéen ñu def un bloc parce que comme li ñuy wax rek chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour le bien-être de notre commune quoi voilà. waaw léegi euh, Doudou ñu ñun ñu si dernière question bi rek nan nga lan ban ban message ngay lancé ñi nga xam te ne ñooy liggéey ci tefes bi par rapport ak salte bi ñu fi fekk ak euh, désordre bi am ci xaw si ki nga xam ne ni fi la gars di yëngatoo. bon nit ki moom daanaka fi nga nekk di fa suturloo foofu di nga war a def mooy jëm koo taxaw jëm koo taxaw si fànni yëpp parce que tey jii nii ñoom ñu fiy liggéeyee buñ ko sabootee ñun bokk ñun comme ñun du ñuy ñëw port euh, ñoom ñoo ñoom ñooy nekk les premières kii quoi les premières victimes voilà ba tax na nag ñoom ñoo war a sàmm fi nga xamante ne mooy seen cadre bi ñuy daanee seen doole ñu gën cee góorgóorlu gën koo taxaw xam ne maanaam comme chaque jour bu ñu xëyee fii port bi la ñuy ñëw war nañ koo mën a sàmm bu baax a baax a baax parce que sàmm seen alal la waaw nekkul nit ki da ñëw liggéey daan sa doole bu ngoonee nga bàyyi fi say mbalit bàyyi fi say leneen saboté ko quoi loolu defe naa bu yàggee dëkk bi du avancé vraiment loolu daa moon message boo xamante maa ngi koy lancé beneen message aussi mooy autorités yi ñu jéem a jàppale mouvement bi bu baax waaw loolu c'est important bu ngeen gisee ay jeunes nekk ci dëkk nekk ay volontaires yoo xamante ne fay leen leen un franc ñu taxaw pour lu avancer lu dëkk bi war ngeen leen mun a jàppale sur tous les plans. motiver leen motiver jeunesse bi parce que loolu dafa am solo. dañ koy gis ci yeneen localités yi ñun fu nekk dem nañ fa di participer ci mouvement yu mel nii te dañuy gis seen euh, seen lo seen kii autorités yi ñu leen di jàppale. léegi nag dañuy bëgg comme fu mel ni Joal autorité yi tamit ñëw impliqué wu davantage ci lii nii parce que c'est une bonne cause quoi merci beaucoup. ñu ngi lay gërëm di la sant ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax ba ñu ngi am. Euh, kii di Pape Ibrahima Diop nekk un membre fondateur ci biir mouvement bi nekk aussi koo xamante ni mu ngi liggéey au niveau de quai de pêche bokk aussi tamit si li nga xamante ni moom mooy GIE des mareyeurs Pape Ibrahima ñu ngi lay nuyu. Eh, maa ngi leen di fay Mouhamed coordinateur di nuyu tous les membres du mouvement di rafetlu seen participation ci bis bi euh, ñoo ngi leen di déglu ci question macha allah Pa Ibrahima waa ñu gis ne tey euh, ànd ngeen ak le mouvement Joal Fadiouth Ngazobil biir renouveau ñëw fi nga xam te ni moom moom tey bu doon nit la moom mooy que xolu Joal Fadiouth muy quai de bi parce que gars yi nee nañ képp ku yeewu sa xel fi muy njëkk dem mooy quai de bi ñu gis ne tey lan moo sababoon ngeen si journée mondiale de l' environnement bi ngeen ñëwoon fii si kee bi ak lu ko waral. waa d' abord maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp euh, encore. tey suñu participation ci li nga xamante ni moom la mouvement bi jël ci journée mondiale bi def ko sen journée nationale pour euh, di jàppale wa di def walu environnement ndëkk ko ci fi nga xamante ni mooy buntu Joal parce que Joal lo fi bëgg jallalé so ñëwé ci port bi inshallah rabbi dina jall te li dañ ko def mu am solo ñun ñu doon membre ci euh, ci pur euh, mouvement bi comme ni nga ko waxee yaa àndandoo ceeg bépp doomu dëkk bi moy lu rafet ñu def sen kéem carton donte moyens yi bari bariwul mais nit ku nekk li nga am ngay wane ba keroog leneen dina ci fekk tey itam ñu rafetlu li nga xamante ni dafa da ngeen ko jël initiative bu am solo la parce que Joal fi nga xamante ni fi la teranga ji nekk daanaka fi la mën nañ ko wax parce que Joal mooy port mooy buntu Joal tey itam wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni ñi ngi ko fiy def rafet na kon nag ñoo ngi doon woo autorité yi tey jii ndax bis bii bis suñu bis la woon yaa ngi dégg waaye nag am nañu si ñëwaale joué seen partition dañ koy rafetlu waaye comme nag dañoo jugoon dem ci ñoom wax leen ni dañoo am bis boo xamante ni dañ koo fas yéenee def ci def ci Joal jaareele ko ci poor bi parce que port bi mooy buntu dëkk bi ah ñoom itam ñu amoon lu ñu tontu woon ñu leen doon xaar ñu leen doon xaar gis nañ fi sax seeni nit xeebuñu ko waaye gun mënoon naa gën a euh, mënoon naa gën a am solo daal te ñu ngi ko doon xaar ci ñoom te ba léegi tamit weesagul ñu ngi koy xaar ndax xam nañ ni bis bi du lii du yam fii rek lu ñu tàmbali la te dañoo fas yéene mu dem incha allahu rabbi. macha allah Pa Ibrahima ñu ñu ñu seetlu ko ne port euh, am na lu ñuy lu ñu fi seetlu muy making pot bi façon doomu aadama bu ne ñoo fiy dese yow ban message nga leen di laaj ak nga leen di lancé ak salte bi ñu fi fekk ak problème yu ñu fekk ci biir tefes gi. voilà merci beaucoup d' abord fii nii dama am loo xamante ni dama ko fi wax ndax fii Carrefour la bépp ethnicité dafa daje fii tax loolu amu fi kon nekkin si biir port bi nga xamante ni moom lañ fa yéene doxal ci wàllu set nañu ku ci nekk na nga jàpp ni fii bu setee yow la bu taxee yow la ndax teraanga ji d'abord mais bul xool rek sa intérêt personnel nanga xool ni boo naanee ndox sa sànni ko yaa ngi dégg am na koy lor ndax bu dul suuf si rek am na keneen koy lor kon nag ñun ñëpp nañu àndandoo jëfandoo bokk setandoo ni ñuy setee mooy ku ci nekk jàpp ni loo fa taxal rek keneen nga ko yàqal yaa ngi dégg li may wax nag ah, képp koo xam ne moom amul fii xii xeet bi xeet bi xeet bi ndax ñëpp noo àndandoo bokk ndey bokk bàyyi te itam ngeen suyee ci rôle bu rafet dëgg yàlla ba ñun ñëpp ñu ñemee am fitu nekk kon nag ñun ñi nga xamante ni ñoo fi nekk bëgg a bëgg a dëkk bi nan àndandoo fas yéenee satal fas yéenee liggéey fas yéenee doxal dooleel te itam loolu wax dëgg yàlla maa ngi ciy rafetlu seen taxawaay yéen ñëpp te itam message bi wax dëgg yàlla ñaan naa yàlla mu jàll ñëpp képp ku autorité ci dëkk bi xam ko xam sunu doxalin li du la tax a jóg daal mooy defar defar defar nag kuy defar moom wax dëgg yàlla doo da ngay muñale rek nan fa yéenee muñ daal ànd defar te ñu ngi wax ñëpp daal ñu ñëw dugal ci seen loxo ndax lii lépp ñëpp lu nekku ne nga ca waaw wax dëgg yàlla Mouhamed di rafet na te ñu ngi rafetlu seen taxawaay di ci woo ñëpp rek jeunesse dëkk bi yëpp seen moomeel la seen macha allah Pa Ibrahima je pense que def na message bu fort yaakaar naa képp ku teew fii tey rek di nga ko dégg te dina dina jàll incha allah Pa ñu ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal ñu ngi ànd ki nga xam ni mooy El Hadj nekk membre fondateur du mouvement nekk personne ressource biir mouvement bi nekk aussi chargé de la communication mouvement Ndiaye Mbaye ñu ngi lay nuyu. maa leen di ziar bu baax a baax baax di leen remercier Mamadou di kontaan trop ci bi nga xamante ne tey amal nañ ko fii nii au niveau du quai de pêche ñu ngi ci doon collaborer les instances de pêche nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk. ñu kontaan ci trop ndax bi ñu wootee ay ñoom tamit euh, ni ñu waroon a waxal ñëpp waxal nañoo ak moom ba ñooñu ñëpp tamit ñoo nañ ci journée bi pour. Euh, que journée bi doon une journée boo xamante ne une journée réussie lay doon mu nekk journée boo xamante ne dafa tombé tamit ak le euh, journée de internationale de l'environnement ñu tombé tamit euh, ñu magnifier ko fii nii au niveau de Joal à travers une structure muy Joal Fayette Nguazobil Renouveau mu nekk ay jeunes yoo xamante ne ce sont des jeunes yu engagés ay jeunes volontaires yoo xamante ne dañuy œuvrer pour la citoyenneté et le développement donc euh, suñu président bi mo nek Mouhamed Daffé xamna naa ne am na loo xamante ne jot na ko wax ba tax na ñun tamit duñ ci ñëwaat li ñuy wax tay ji mo nek côté journée bi journée bi donc attente ñu ci doon xaar yu bari am nañ ko ci mo nek que euh, la sensibilisation la conscientisation des gens ñu xam ne hygiène mooy lu nga xamante ne moom moo ñu war mu nekk surtout domaine bi nga xamante ne nii dañ fi def euh, activité économique donc notre hygiène notre économie bu affaire bi setee dafay mel ni ñun ñëpp la setal parce que port bi tey ji suñu yaay ñoom ñoo fiy liggéey suñu ay maam ñoom ñoo fiy liggéey suñu ay papa suñu ay rak ak suñu ay mag surtout faaka nag dem na ba nga xamante ne nii journée boobu wax nañ leen ko mu am nu mu leen toll ak dayoo bi xëy na bu ñu fi jógee ci côté hygiène dina am loo xamante ne dina marqué si ñoom muy côté donc sensibilisation boobu doon day donc réussite pour ñun beneen côté boo xamante ne nii tamit moo côté aspect matériel tey ji dañuy liggéey ak suñu mat ak suñu matériel yi nga xamante ne moom lañ fi jot am loo xamante ne tamit euh, waa kee waa kee bi ñoo ñu ko jox muy journée euh, muy commission environnementale bi parfois amuñu ay gants sax yoo xamante ne ñu ngi koy liggéey gars yi dañuy jël seen loxo dugal ko si biir suuf si di génne mbale di génne déchet bi nga xam day am benn impact boo xamante ne au niveau de l' environnement surtout sur le plan écologique muy déchet plastique yi nga xamante ne ñi ngi ñi ngi naan di sànni mbuus yi te alors waroon na am xamante ne nii fa lañ koy def déchets durs yi nga xamante ne mënu mënu mënu gaaw a seey gaaw sey si c'est-à-dire du du recyclé wu dañ leen waroon a jël am foo xamante ne dañ leen di denc am pacté leen foofu noonu buñ ko paree ñu recyclé ko am ci ay yeneen jumtuwaay yoo xamante ne nii déchets yi mën nañu ko permettre yoo xamante ne ay à travers ay engrais lay doon wala ay pavage lay doon wala ay bassin yoo xamante ne nii si toutefois mën na servir comme poubelle bokk naanati sachet ndoxam mu jël ko. am foo xam ne da koy sànni wala ku am mbalitam moo ne da am fu mu koy teg pour que bu jógee foofu noonu saxaar bi mën ko ñëw jël ko yóbbu ko si dépotoir yooyu noonu ñu ngi leen jaajëfal nag di leen remercier bu baax a baax surtout ñi nga ànd ñi nga xamante ne ñoo ànd ñoom si collaboration bi mis à savoir le président di quai de pêche le président des des pêcheurs en activité ak euh, le di du CLPA ak euh, Pape Gane Gueye ak le président des mareyeurs monsieur Thion Ndiaye ñoom tam ñu rafet rafetlu trop woo nañ seen ñi ñee waroon a woo ñëpp donc di wax ne Joal Fadiouth li mooy initiative boo xamante ne moom da koy def fépp fu ñu dem instance yi nga xamante ne ñoo fa nekk ñoom la ñuy collaborer ak ñoom pour que ñu mën a def benn activité boo activité boo xamante ne day jëriñ citoyen yi day jëriñ day jëriñ dëkk bi tendre vers le développement de la commune donc loolu rek lañ ci amoon li ciy wax ñu ngi rafetlu bu baax ci bi di ci kontaan bu baax di leen jaajëfal waa Joal TV kontaan nañ bu baax. macha allah Mamadou Ndiaye Mbaye El Hadj Ndiaye waaw je pense que euh, en résumé et en grosso mot, Ndiaye Mbaye wax na li nga xam te ni moom mooy les tenants et les aboutissants ak li nga xam te ni moom mooy euh, de de manière générale li nga moo ñu moo ñu fi dajale tey wax na lu am solo wax na solution yi wax na cri cri du cœur bi nga xam te ni moom moo Euh, problème yi kon nag je pense que Ndiaye wax ji am na solo ñu ngi lay jaajëfal di la wax ne bon continuation di du courage jaajëf frère. que euh, Ndiaga Sarr nekk vice président mouvement bi Ndiaga Sarr ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal di la tàllal micro rek nga am ay quelques cadres yoo sànni par rapport ak journée bi. waaw gannaaw ba ma leen nuyoo tamit di leen jaajëfal bu baax di nuyu waa Joal yëpp waaw di nuyu waa port bi di rafetlu aussi. taxaway wa port bi macha allah am na am wax deug yalla mouvement bi mouvement d'ensemble la comme ni ko gars di waxe à chaque fois donc initiative bi dañ ko ñëwoon lëkkaloo ak wa port pour mëna a defal dara suñu gox comme niñ koy waxé donc euh, mu nek lu rafet lu am solo waaw di ko rafetlu à chaque fois di ñaan di ñaax gars yi ñu gën a góorlu góorgóorlu parce que lepp luñ def rek suñu dëkk lañ ko defal waaw talent hein? lepp luñ def suñu dëkk lañ ko defal mais aussi tamit dafa am loo xamante ne foog ñu wax ko mu nekk loo xamante ne franchement man ça me touche droit au cœur parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk est-ce y yaa ngi comprend parce que ñun bu ñu dëkkee ci dëkk bi am nañu droit bu ñuy def activité te loolu moom mooy yoon am nañu fi yàlla teg muy lan la la mairie. municipalité municipalité bi ñu dem donc def nañ li ñu war a def yëpp dem solliciter leen donc euh, def nañ suñu requête mais on n'a pas eu quand même. Euh, comment dirais-je. Euh, euh, retour amul quoi. amuñu retour te retour bobu non wax deug yalla c'est pas une première bo xolé depuis suñu activité activité buñu ñu mës fi Joal on les a sollicités mais jamais musuñu am retour te mu nek lu ñaaw nak lu ñaaw lo xamante dañ koy ñaawlu ba jusqu'à xam ba fu ñaawlu yam parce que ñun ci commune bi lañu bok est-ce que a un comprendre activité buñuy def mairie bi ñun on n'a pas besoin de soutien financier

incha allahu rabi dinañ ci jël andi ay ay dinañ ci andi taxawaay boo xamante ne wax dëgg yàlla on va rectifier les choses quoi. macha allah Ndiaga Sarr Ndiaga Sarr dinañ dinañ revenir ci yow dañuy dem ak le secrétaire général mouvement bi euh, Cheikh Tourado Sarr Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Mouhamed. waaw je pense que tey euh, Cheikh du moins je que tey journée la boo xamante ni journée bu am importance la nan nga gisee journée bi. ak nan lan yan yan yan yan yan kàddu nga ci mën a wax par rapport ak bi ak li nga xam te ne ñii ñooy ñooy ci port bi. waaw journée bi pas ñong koy bu comme ñiko euh, euh, encore une fois jeunesse bi di len wax ne maanaam Joal fadiou jeunesse bi parce que dafa am benn wax génération bo gis rek manam dafa am soit mo suis ko voilà, mu fuir ko manam mu daw ko carrément ñun nak décision trahir li nga xamante suñu génération Joal ñun ko wax Joal dafa nekk ville boo xamante ne dafa salte tey municipalité bi fi nekk seen campagne yëpp loolu la woon Joal ville propre léegi nag soo amee sance am jeunesse boo xamante ne yeewu na xam na li mu bëgg mi ngi jóg pour set setal dëkk bi parce que lii nekkul suñu premier activité soo fàttali ko bu baax maanaam si école yi nañ commencé woon boobu équipe bi nga xamante ne moom moo génn ñoom ñoo fi nekkoon la même chose nag nañuy def à chaque fois saa ñu organiser suñu activité yu mel nii bii mooy la deuxième fois Nous solliciter maire bi té dara muy équipe bu génn di équipe bi fi encore une fois ñu ngi leen wax ne xaaruñu kenn ci dara jualu mom rek ku nekk day de walam ñun assumer pleinement suñu responsabilité yi nga nous mom jël pour engagement li nga nous avons nañ am pour projet pour commune bi dinañ ko correctement waaw di wat encore une fois jeunesse bi di leen wax ne Joal Fadiouth Ngozo bi dafa nekk benn mouvement boo xamante ne nekk euh, association à but non lucratif ubbil na buntam ñëpp soo xoolee si dëkk bi association yi nga xamante ne comité directeur bi quarante cinq personnes la bëriwul c'est-à-dire que mu ngi réunir jeunes yoo xamante ne waa Fadiouth nañ ak waa Joal ak waa Ngozobil kon en particularité maanaam jeunesse Joal Fadiouth Ngozobil ñëpp ngi fi ñu xamee noonu association bi association communale la dañuy yëngu si lépp li nga xamante ne moom développement commune bi côté social côté environnemental côté économique dinañ amat aussi yenen jangat yo xamantene ne ñu ngi koy def ci dëkk bi par rapport ak ay projet yo xamantene ak ay partenaires yo xamantene ne bëgg nañ ko indil dëkk bi parce que li ñuy wax chaque jour rek manam Joal maire bu màgget la ñun nak ñun ñoo mëna a faj maire bu màgget bobu bam nekkat xalé waaw di leen wax aussi au niveau de la municipalité dina fa ñëwaat la municipalité dañoo incompétent parce que je ne pense pas que te mun ngaa am jeunesse bu mel nii di ñëw pour defal li sa dëkk su la sollicité maanaam yow da nga ko war a encourager jàppale ko mais ñoo ngi tey gisuñu fi kenn amul benn matériel boo xamante ne jox nañu ko te pourtant woo nañ leen rappelé nañ leen ba tey si suba rek ñoo ngi leen woo mais sax nangu ñoo jël seen téléphone c'est dommage il fallait nag dire les mots tels qu'ils sont ñun nag dinañ indexé dinañ indexé parce que dañ leen ko wax ñu Joal Fadiouth amuñu maire la Dame Pétrole amuñu maire encore une fois moom moo dox naan ku am kuddu doo lakk ana mu tey ñun loolu la ñuy xaar si moom xaaruñu si moom xaalis xaaruñu si moom ndawtal xaalu si moom xaaruñu si moom suukar xaalu suñu moom matla xaaluñu si moom ceeb. defaral suñu dëkk dañoo bugg mu defaral suñu dëkk. ñun nag pare nañ pour defar suñu dëkk. macha allah Cheikh Tourade secrétaire général mouvement dañuy dem. ci ki nga xam ni moom Moussa Ndiaye Adior nekk président organisation mouvement bi Moussa dégg nga. yaakaar naa kon loolu duñu ci revenir en quelques mots rek nga résumé ñu xool naka la ñuy def ba jàll ci leneen comme temps bi dañoo xoj. Hmm, asalaamaaleykum président Mohamed Daffé. oui maa ngi nuyu ñëpp Moussa Ndiaye président organisation di wax ne moom man moom li may wax rek mooy municipalité bi laa koy wax waa muy madame le maire madame Sibi. pour moom mu xam que ne mouvement bi nekkul mouvement boo xamante ne dafa jóg pour di ko contribuer. merci nekkul mouvement boo xamante ne dafa jóg pour di ko sànni xeer man damay wax que ni moom dafa war a sant yàlla ndax moom moo toog fekk jeunesse boo xamante ne nii jóg nañu engagé wu pour commune bi jëm kanam kon moom bu ñëwee fekk jeunesse bu mel noonu ne fi jóg. pour commune bi am beneen xar kanam moom yaakaar naa ne moom li mu war a def dafa war a soutenir jeunesse yooyu warul mën a nekk loo xamante ne nii dañuy booy boycotter jeunesse boobu surtout ñun nag rafetlu wuñu benn yoon seen doxalin parce que dañu yaakaar na ñoom bu ñu amee changement bu bees ñëw fekk fi jeunesse boo xamante ne jeunesse bu dynamique la am ay engagement yu bees yoo xam ne ñoom dañ ko jël pour commune bi yaakaar naa ne ñoom war nañu mën a ànd liggéey ñuy wax tamit ne aussi newuñu fi di épauler kenn surtout du benn politicien boo xamante ne dinañ fi nekk di la épauler. amuñu concurrence tamit ak kii que ce soit li ñu intéressé mooy développement Joal Fadiouth et ses kon nag ñu ngi siy woo bépp autorité boo xamante ne mu ngi si dëkk bi au niveau de Joal ñun seen doom ñun ñun ñoo leen di dékk suñu loxo bëgg ànd ak yéen en masse bëgg a def benn bloc liggéey ak yéen ci développement Joal Fadiouth ñuy ubbil suñu porte ñëpp képp ku yeewoo Joal Fadiouth rek woo nañ la si liggéey bii nii surtout nag moom mi nga xamante ne mooy madame la maire waaw ñu ngi koy woo si liggéey bi di ànd ak moom ci li nga xamante ne mooy développement Joal lu dul développement Joal nag duñ si ànd ak kenn ak ku mu mën a doon ak kum mën a doon rek duñ si ànd ak yow loolu laa amoon lu ma ciy wax di gën a ñaax tamit jeunesse bi ñu xam ne maanaam mouvement bi mouvement dëkk la. du mouvement quartier du mouvement lenn mouvement dëkk la ñun nag nagam ñun ñoo bokk dëkk bi di fi yeewoo dëkk bi defal ñu lu nekk kon ñun war nañu mën a defal dëkk bi ñuy wax jeunesse bi nag ne kaaleen ñu booloo ñu ànd liggéey suñu gox ndax dëkk bi ñun ñoo ko mën a liggéey même kuñ ko mën a dënk it dafay ñëw fekk ñu si rek ñu won ko ne ñun suñu dëkk la ñu am lu ñu mën a amit suñu dëkk la soxlawuñu ku ñuy may xaalis soxlawuñu ku ñuy duyal suñu poste parce que fii mouvement bi ñu ko séq ñëpp ay responsable lañ kenn ku si nekk am na loo diriger di ko doxal di ci am sa teraanga yor si ñu ngi si war a yor di ci def li nga ci war a def dëkk bi nag ndagam lu ñu bokk la ñun ñëpp kaale ñoo ànd liggéey ko te xam na ñun ñoo ko mën a liggéey ñoo ko mën a defar kenn duñu ko defaral loolu rek laa amoon lu may wax quoi. macha allah Moussa Ndiaye Adior kàddu yi am na solo te am na maanaa daal ñu ngi lay jaajëfal bu baax président organisation di leen encouragé di encouragé suñu bopp jaajëf Moussa. tey rek suñuy activité ñu ngi ak le président William Lalir nekk président euh, interprofessionnel bu quai de pêche bu Joal euh, ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay rek maa leen di fay bu baax a baax a baax vraiment di leen fay baax a baax. waaw ñu am mbégte ak contentement tey ñoo fekk la fi nga xam te ni tey yow yaay ki nga xam ne yaa nekk ci bopp bi. ñu lay ñaanal yéen bi oyof ci yow yàlla defal la jàmm ba li nga yéene ci tefes gi yàlla ci port bi yàlla def ko ci. boo tey ñu gis ne tey la mooy jour le 5 juin journée mondiale de l' environnement tey ñu gis ne jeunesse bi def nañ déplacement ñëw ci au niveau de quai bi léegi ñu bàyyi la rek nga sànni si ay kàddu par rapport ak journée bi ak li nga xam te ni mooy sensibilisation par rapport ak sànq li ñu la fekk ngay wax. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf en tout cas maa leen gën a kontaan franchement. Euh, parce que lii xaaru sax ba mu nekk journée de l'environnement ngeen doog a ñëw journée de l'environnement bi daf lañ cee fekk te def naa bi ngeen di ñëw sama bi gars yi ñëw sama bureau waxuñu woon sax journée de l'environnement dañ ñëwoon dañu am yéene ñëw participer ci développement la commune participer ci environnement commune bi ñëw ne dañu bëgg a set setal ci commune bi ci biir commune def nañ ko feneen ak feneen ak feneen ma koy rafet lu baax a baax ngeen ñëwul wax ma ni da ngeen loolu seen yéene du ma def lu rafetlu ko ma ànd ceeg yéen yàlla def nag ñu ciy dox di ci dox di ci dox di préparé ba journée de l'environnement ñëw dab ñu kon def naa journée bi dafa daf leen fekk ci ci ci mbir mi vraiment def ngeen ko yëg naa ko ci yenn écoles yi centre de santé yi en man kontaan naa ci yéen wax dëgg yàlla seen taxawaay vraiment lii lu ma rafetlu lo euh, naam euh, ñun ñu ngi bale tous les jours am nañ ay ñoo xam ne ñu ngi bale tous les jours waaye nag dafay laaj des fois nga def grand ménage mm-hmm. indi ndox indi lépp jël tous les recoins mm-hmm. yoo xam ne xëy na suñu suñu balee daawuñ fa yegg en tout cas li mom luma ma rafetlu la franchement luma ma rafetlu lol lol la vraiment di ñaan yalla vraiment li ngeen djublu ni vraiment yalla dafa leen ci jàmm bu baakha a baax parce que vraiment euh woné na action citoyenne euh bu la neexoon ngeen fu ñu dem nak ñuy laaj xaalis mbala wa port ba ñu ngay liggéey xaalis amna ñuñ fay fay té c'est vrai amna na ñuy fay pour ñu balé fofu mais bi nga ñëwé vraiment da nga ñëw né suñu dëkk la suñu suñu port la c'est c'est euh, voilà mu ngi nonu non la moy mbir mi en tout cas lu ma rafetlu la franchement rafetlu kontaan naa ci trop trop jërëjëf président merci ñu ngi lay jël jaajëfal baax di la gërëm ñu ngi aussi ak Modou Mbaye Lo nekk euh, marieur euh, euh, ñu nekk koo xam ne aussi tamit membre la ci biir mouvement bi nekk aussi membre fondateur Modou Mbaye ñu ngi lay nuyu. waa ñu ngi nuyu waa Joal yëpp di nuyu Joal Renouveau di wax ni acte bi acte bu rafet la. tey port ñëpp a ko bokk commune Joal-Fadiouth bépp nga sobit ñoo bokk port kon bu ñëwee port di defar di defar port kon ñun mën nañ ni suñu bopp lañuy ñuy defaral te tey Joal gi yëpp teew nañ fi tey amul kii ñitu port ak ku dul ñitu port ñëpp teew nañ fi journée de l'environnement la waa it wax dëgg yàlla fii nga ko jagleel muy port tey vraiment xol sedd na ci ndax port bi ko xooloon semaine bi ci ginnaaw ak fan yi amoon na benn melokaan mu xawoon a mel mais nag lii nag da cee baax li président wax William William day baax benn bis nga ñëw def def grand ménage kon loolu ñu ngi koy rafetluwaat bu baax wax dëgg yàlla di sant yàlla bu baax it te xam ni lii suñu bopp lañ ko defal daal ñun ñëpp ñun ñëpp te it wax dëgg yàlla association lii day jariñ di xool xam ni lii moo manqué ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy matal dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax di sant tous les membres de l'association Joal Fadiouth Renouveau jërë ngeen jëf ñu ngi lay sant bu baax a baax wax dëgg ñu ngi lay jaajëfal macha allah kàddu yi rafet na. waa ba tey ak activités yi ñu ngi ak le président Thion Ndiaye président des mareyeurs de Joal Fadiouth Nguazobil président ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay dafa ñu ngi fay askanu Joal Fadiouth yëpp. waaw ginnaaw loolu président ñu gis na tey jii le mouvement Joal Fadiouth Nguazobil Renouveau dañuy ñëw ci au niveau de quai de pêche ànd seeg intense yi nga xam te ne ñoo fi nekk rawatina yow. ginnaaw loolu baxna tamit ñu xamal wa aduna xamal wa Joal Fadiouth que ne lii bu deme ba taxaw yalla ak jëm ji la parce que mom mo nek nga xamanteni tay mom mo nek ki nek ci suufu lepp ci kaw lan ci ñeeruñu Joal Fadiouth ak ñeeruñu ñi nga xamanteni ne ñoo ñoo ci tefes gi def jël président loolu yakarna ya ma ci gëna porter pour pour wax expliquer ko ma bayal la ak micro bi rek. waaw jërëjëf dafay ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu wa Joal renouo ngasse bin renouo di nuyu askanu zoal Fadiouth yep ah moment bi nak bi ngeen taxawal dafa nek moment bu noble bo gisee ñun ñu def ci effort noble ci zoal Fadiouth ñun ñu nek ay doomu zoal ah di titero zoal Fadiouth kon kep ko nga xayni ni doomu zoal nga di titero zoal Fadiouth da nga wara ñew duggal ci sa loxo mu nek moment bo nga xayni rek amul politique amul dara loolu moñ ci gëna di di yëngu ci yu bari Ah, école yi tay def ngeen ci ay effort yu metti avant ñuko ubi, ubbi tey lu mel nonu ngeen indi ci quai de bi kon mouvement bi ah, ñun ñi nga xayni ni télon nañ ko gëm and ak yeen di liggéey lepp nek ci développement Joal Fadiouth gis nañ affaire bi mu ngi commencé ñor li ñuy wax rek ñi invité doomu Joal Fadiouth yépp ñu ñëw japp si mouvement bi kenn ku nek li nga man ndax mouvement bi buñ ko dolel nañ waaw macha allah président je pense que kàddu yi am na solo lancé na aussi message bu fort par rapport ak jeunesse bi wax na aussi tamit ñi nga xam te ni ñooy tase port bi parce que bu ñu nee plus de 3000 personnes ñooy tase chaque jour au niveau quai de pêche Joal-Fadiouth kon ce qui veut ne loolu daan la te aussi wax na si côté set kon président ñu ngi lay jaajëfal di la encourager di la remercier di la ñaanal yeneen ndombay tànk yu gën a kawe yooyu macha allah ñu bàyyi ñu ñëw ak euh, Asi nekk membre fondateur ci mouvement bi nekk aussi un élément. boo xamante ni vraiment jigéen ju mën góor la Asi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di ziar waa mouvement bi ziar waa Joal yëpp di kontaan aussi ci initiative bi vraiment lii moom comme ni ñu koy waxee chaque fois rek yéex nañ koo def parce que ñun amuñu lu dul Joal Joal la ñu am lu ñu mel Joal la kon nag lu war a jëmale Joal kanam ñun dañ see war a jàpp loogis tamit day am commencement peut-être ñun bu ñu commencé wul woon sax am na ñoo xam ne ñu mu nekkoon seen xel mais amuñu woon volonté pour commencer kon nag man li may wax rek damay invité ñëpp mag ndaw góor jigéen parce que ñun ñëpp Joal moo ñuy teel suñu parents yi aussi dañ nañ leen di woo parce que il faut ñu ñëw tamit ñoom booster ñu parce que loolu dañ koy soxla bu ñu geesoo gis ay mag yoo xamante ni ñu ngi suñu ginnaaw duñu jàppale ñun dañu gën a sawar di invité ñëpp nag population koo xam ne fu nekk ñi nekk Joal ñu nekkul Joal yëpp ñëpp ñun waa Joal lañ maa ngi invité ñëpp ñu ñëw en masse ñu jàpp si parce que bu ñu xoolee ak yeneen communes yu nekk Sénégal ak yeneen localités Joal si ñu gën a féete ginnaaw ci la bokk te loolu suñu defet la comme ni ko ñëpp di waxee kon nag ñun dañu lépp lu ñu mën rek dañ cee war lu ñu mën rek dañ ko war a def nañ jàpp jàppandoo bañ a déglu bañ a xool parce que tamit tout début est difficile dina metti dinañ gis lu nekk nañ dégg lu nekk mais nañ gëm rek parce que ngëm-ngëm moom solo loo gëm rek après waaw mooy loolu da nga ciy am li nga bëgg satisfaction ñi sant yàlla tamit maaw di kontaan bu baax jaajëf bëggee naa leen bu yaatu sax. ba tey suñuy activité ñu ngi ak euh, monsieur Abim Ndiaye mu nekk président des mariés en activité nekk aussi un membre ci biir mouvement bi pour wan la ne que mouvement bi dafa aléatoire te ay buntam ko kenn. dañuy nuyu Habib Ndiaye ginnaaw bu ñu ko nuyoo ñu bàyyi ko rek mu développé ko euh, mu wax naka la gisee journée bi ak lan la ciy wootee ak lan la ciy xaar Habib Ndiaye. waaw salaamaaleykum Mohamed Dafé di la nuy bu baax président Joal mouvement Joal Fadiouth Renouveau Joal Fadiouth Gasseville Renouveau bon di am contentement bu baax nag bu ay xale amee xelu jóg defar seen dëkk parce que yaakaar naa Joal moom ñun ñëpp ñoo ko bokk ñëpp ñoo ko moom lépp loo xam ne baax na si dëkk bi rek ñu ngi siy oo ñëpp mouvement bi moom. xalé ñoko initiaté aussi mag ñi seeni grand pour ñu and ñu bokk japp ñun ñëpp kon bu kenn japp ne oowuñu ñuma wala onañ ma onañ ñëpp képp ko xam dal yaangi biir Joal Fadiouth Ngassaville waroon ci liggéey bi nga ñëw japp ci liggéey bu ñu bokk and défar dëkk bi parce que dëkk bi nak mo ñu ñor te dëkk ñafa dëkk ñokoy défar waaw di talal ñëpp loxo ñu ñëw japp ci liggéey bi kenn baña xaar ñu wola ku ko dégg dal en tout cas ñu ngi lay wo waaw kontaan naa si bu baaxa baaw baax dëgg yàlla pêcheurs yaa ngi si biir mareyeurs wa KDPS bi fam formatrice ñep on nañ ñëpp daal en tout cas bayiwu ñu kenn waaw lag lag lag enu katak ñep dal ngi ni wo ma sha allah abi wax ji rafet na mais mëno mëno dem te waxo ci salté bi ci port ak gaay nga xamanteni ño fi nekk di fi liggéeyee di fi jaruñu war ko mëna sétal lool mom fa nga wax seen. waaw parce que même bo xolé kdps bi amna commission environnement bo xolé ñom wa deug yalla ñu ngi def seen cap lay kàttan ñu ngi palais mu ngi def lépp mais tam ñu nekk si biir kee bi di liggéey dañu dimbale nit ñi te yërëm leen parce que nag yaakaar naa ne boo xëyee gis fa nga xëyee mu set wicc kon yow ma fa yow ma fa gontu defar moo la war defaral waaw parce que liggéey bi moom du liggéeyu kenn du liggéeyu ñaar environnement dafa baax si dëkk ñoom ñoom nañ ko respecté sàmm ko te di ko gérer normal macha allah yaakaar naa waa port bi ñu fiy liggéey message baa ngi noonu monsieur Abi Ndiaye président des pêcheurs activité jàll na ko kon baax na Habib ñu ngi lay jëfal bu baax. ma rek gars waa Joal Fadiouth ñu ngi leen di présenté ki nga xam te ni mooy président Abdou Diouf nekk président Nouvelle Vision ànd ak confrère am Khali Fall pense que ñoom gis nañ journée bi ñëw nañ si aussi massivement dañ leen di bàyyi ak kàddu yi rek comme ça ñu développé wax li nga xam ni moom mooy journée bi wax si activité yi wax si mouvement bi wax si aussi tamit nit ñi nga xam ni ñooy daje ci port bi te war ko setal war bañ a bañ a bañ a jëriñoo port bi rek di ko jëriñ aussi président kàddu gaa ngi noonu. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax Mohamed di nuyu waa Zifa TV si seen liggéey bu rafet bi ñu nekkee di def saa su ne waaw tey nag dañu am mbégte teew fii tey si journée mondiale de l'environnement mu doon set ak setale mu doon domaine boo xam ne képp kuy doomu aadama rek war nga si xar sa tànk tubéy rawatina nag fii si tefes bi quai de pêche bu Joal-Fadiouth nga xam ne moom lañ yaakaar suba ak ngoon yaakaar suñu teraanga te li ñu war mooy ñu taxaw temm pour te continuellement moo tax journée bi tey dañ ko dund ak mbégte ànd si nag ak euh, waa Joal Fadiouth Ngazobil Renouveau muy liggéey bu rafet mu lool mouvement bu ay jeunes taxawal di œuvrer aussi pour le développement dëkk bi ak gox bi lii ñu def nii tey daanaka bëri na liñ koy def duñ na guleet rek ñu def investissement humain ndax ñoom ñoo ngi si dëkk bi te yaakaar ne ñoom ci seen loxo mala su dëkk bi waree jag ñoom war nañ si apporter seen pierre à l'édifice donc ñu leen di jaajëfal di leen di ndokkal si journée bi bëgg nag journée bi ñu bañ ko male fii au ñu naan journée de l'environnement mais nañ def des mois de l'environnement wala sax des jours organiser ay cleaning day bu ko defee dëkk bi gën a comprendre le sens de la propreté ndax ñun fii ñu nekk si quai de bi boo gisee Kerepes bi nekk bi ëpp doole si Afrique si Sénégal wala si Afrique de l'Ouest si côté artisanat mooy euh, agrément bi ñu am agrement bi nag li tax ñu koy am mooy set gi ak setal gi nga xam ne moo ne si Kerepes bi donc waruñu en aucun moment waruñu sàggante Kerepes bi ba mu tilim bu ko defee agrement bi ñu ñàkk ko te loolu day gàllankoor euh, liggéeyu képp kuy acteur de la pêche bu Joal Fadiouth ñun nag euh, tey

ñu ne journée bi buñ ko mënee chaque fin du mois wala chaque premier dimanche du mois ñu def ko ndaxte njëriñu Joal Fadiouth la njëriñu quai de la waaye njëriñ la aussi pour képp koo xam ne rek yaa ngi suturloo quai de pêche bi Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul

something I need you to hear, and don't